tey foo mënti féete rek ci àddina tey bis bi war na la teg ndax sunna dafa lu am solo ci doomu aadama euh, sunna dafa nekk li nga xam ne bokkoon na ci yonent salallaahu alayhi wa li mu fi bàyyi woon dafa ne woon maa ngi dem waaye bàyyi naa fi sama alxuraan ak sunna kon maa ngi leen di wax ngeen tegu ci alxuraan ak sunna kon bu fellitu Serigne Touba wa nga xam ni moom kuy wax ci moom rek mën ngaa yem ci sunna kon dañuy daal di ngoy ci loolu ngir mën a defaru rek ba faw kon li ma xam ci màggal gii mooy màggal la goo xam ni ku ci ñëw baatin rek nga fi fekk alxuraan kek nga fi fekk sunna nga fi fekk Tuubaa nga fi fekk moom mi matale loolu lépp muy doon benn rek kon loolu moo nu fi indi tey ñuy taasu ci barke bi bu baax di ñaan yàlla sans borom ah, doxe ci màggal gii def Sénégal dëddale ko bépp jullit mu dëddalee la tey ci mu dëddale léeg ñàqare dolli say xéewal yokk ko teg ñu ñun ñëpp ci yoonu siraatul mustaxim ku fi jóge yàlla na nga defaru kon loo ku fi ñëw rek njëriñ rek moo la indi kon njëriñ loolu la indi yàlla na nga yàlla na ko fi jële yóbbuwaat ko ku dem rek yal na nga yëg ci sa bopp ni am nga ak yokkute jëmale ko ci alxuraan ak sunna loolu moo fi indi kon sama gis-gis ci bu gàtt rek ah loolu rek laa ci xam di sant santaat sama borom bu baax di sant nag Serigne tubaab mi nga xam ni moo nu fàggul lii lépp ba ñu di ci jëriñu alhamdulilah rabbil alamin. daa jërëjëf sana Xadi Jóob Mbàkke wax yi am wax kàddu yi am na solo ñaan ngeen am na solo yàlla na suñu borom boole ba lépp luñ fi ñaan rek suñu borom